la loi Gobelet 1886 loolu moo waral effectivement bi ñu ñëwee ci 1905 la loi de séparation jàll donte def nañ ci 48 séances assemblée nationale 48 séances discuter ci di ci xeex lu ne def nañ ko ba mujj ñu ni nañu génne yàlla ci li penc mi dox loolu lañ ñu jox ñun Sénégal nañu génne yàlla ci mbir mi moo tax su ngeen demee ci encyclopédia universalis à la page 927 da ngeen ca fekk li may bëgg a wax Jules Ferry moom mi nga xam ni dëgg dëgg moo taxawal lool dafa wax ne mon but ultime c'est d'organiser le monde sans sama jublu dëgg-dëgg mooy nos yëf yi doxal ko génn ci loxob yàlla loolu mooy la première révolution te Sénégal même modèle boobu moo fi dox actuellement ay laïc lañu boo waxee nag gaa yi bëgg koo layal naan la wéy parce que si c'est la man la nañu bàyyi caaxaan 1998 bu ngeen demee ci Europe et laïcité Europe et laïcité 1998 comme c'est récent dañu wax ni la laïcité est au-dessus de toutes les religions li ngeen di faral di jàng huwa alladi arsala rasulahu bil huda wa diinil haqq liyuzhirahu ala diini kullihi walaw kariha al-mushrikuun loolu ngeen di jàng ñoom moom lañu jël loolu ngeen di jàng moom lañu jël ñoom moo moomale ko seen bopp léegi ni diine yépp nañ ci suuf saytaane war a yéeg ci kaw te ñun lañ utiliser pour def ko jumtukaay ñu ngi wax ni DK 49 15 BE mu mi ngi bloqué fi mu nekk bu demee mënee dem déplacé ko ni urgence la DK 49 15 BE kon loolu mooy première révolution bi deuxième révolution bi mooy lan la révolution industrielle et scientifique ndax bi loolu jàllee rek danoo daal di tàmbali def production xarala yi daal di gën di yokk ñu soppar ñi nag nit ñi ci gis gisiin objectif principal bi doon maintenant nag disloquer la famille maanaam la famille dëgg-dëgg moom lañu attaqué ci la ak ngóor jigéen bokk ndax benn fànn la ci pour disloquer la famille ginnaaw taxawal nañu ci ay xalaat ak nattukaay yoo xam ni wuute naa la ñu xamoon ba noppi léegi nag ñu teg ci leneen mooy disloquer la famille famille dootul lanu baaxoon a xam góor ak jigéen gu ànd ngir jëmmi yàlla te jaarale ko fan ko war a jaarale ngir fas yéene jaamu ci yàlla ba yàlla may leen ca njaboot ak lu mu ca dogal famille dafay doon ci tënk ci tënk rek li xew Italie fan yi ci ginnaaw dafa am ñaari góor yu bëggante bi ñu bëggantee ñu dem a dem ba yàgg bëgg am doom kenn ku góor ki woo rakkam ju jigéen waxtaan ceeg moom woo yaayam waxtaan ceeg moom rakk ju jigéen ji moom man leen a jox ovule ni leen danaa leen jox sama ovule su ko defee yaay ji ni leen kon maa leen ëmbal ba imbil leen rakkam ju jigéen moo leen jox ovile yaayam ji ko jur ëmbal leen ba indi lii mooy li xew ci àdduna kenn kenn ki kenn ki ci góor jigéen moo dem ci rakkam ju jigéen mu jox ko ovile ku mbokkal ndey yaayam ji ko jur ëmbal ko lañu bokk moom xam naa nit ñi kilifa yi boroom xam-xam yi ñoo ci dimbali waaye man xaw ma xam naa lu jaxasoo la troisième révolution bi mooy lan la révolution informationnelle et communicationnelle gis ngeen bu njëkk nit mën naa nekk ci barab nekk ko ngon sax kenn mën na ko bañ a xam wala du yaatu loolu du siiw tey jii da ngay gis boo fettasoo léegi mu tasaaroo wër àdduna ba tendance bi sax dangay yaakaar ne kenn ku baax amatul ci kaw suuf fekk na am na ku fi wax loolu kàddu léegi parce que nit ñi li ñu sawar ci tasaare ko mooy ab safaan nañu tasaare lu baax am na ci kaw suuf de lu baax mi ngi am ci kaw suuf ba tey lu baax mi ngi am ci kaw suuf ba tey waaye fi mu ne li nit ñi gën a sawar bu ñu waxee baat bi journaliste yi jëfandikoo mooy buzz mooy tasaare ab safaan rek kon foofu xëj na duma ci sori trop léeg-léeg nga wax ak nit nag mu ni la man daal sama njaboot dama ciy góor góorlu su ko defee am na loo xam ni kenn mënu ci dara man la boo demoon ci sa njaboot ni da ngay góorgóorlu dem ba ci aw xur ñu bëttal la ko nga dugg ci yàgg sa njaboot dootoo mën a mucc actuellement fii jamono toll avec la guerre total bi ñu déclarer les humains une guerre totale une guerre totale contre l'homme maanaam guerre total lañ déclarer nit ndax dañ ko bëgg a jële ci ak nite yóbbu ko ci moomeel ko seytaane wal iyaasu kon loolu mooy ñetti yëf yi nga xam ni moo sabab lii ñu nekk te nit ñi xamuñu ko su ko defee nag ñun ana lu ci suñu wàll ci suñu réew suñu réew mii bokk kilifa yi bokk yi suñu imaam yi sëriñ daara yi yéen bokki jullit yi ñun réew mii am nañ problème am nañ problème ndax ñoo ni ci république lañu nekk ku fi yi ku fi amul aw carte wu firndeel loolu man gisuma ko xalif général imaam ñëpp ci marché yam am nañu soit këyitu juddu mbaa ñu am carte d'identité mbaa ñu am passeport mbaa luy mandargaal ñi ci réew mi lañ bokk wala bokk am nañ fi kër guy tegte la ñoo ngi ci réew mi waa illaa ku fi jógee yàlla na yeex ñu yóbbu la te fii lañ lay denc kon ci réew mi lañ bokk li ñu fi def lépp nag nañu xam ni ci tur askan wi lañ koy def waaye ñett yëf yi nekk ci problème ci suñ constitution laa bëgg a benn bi ci njëkk mooy suñu constitution dañ cee référencé lu garaaw muy lay laïcité ñun laïcité bokkut ak suñu aada am na ñoo xam boo leen waxee nag ñoo naan la waaw lakum diinukum waliya diin man leen yéen vous ne comprenez rien du tout man ñaar fukki at ak juróom a ngi nii ma koy gëstu ci laïcité vingt cinq ans laa wax koy gëstu ci laïcité maanaam koo dégg mu naan laïcité lakum diinukum waliya diin xamoo sax yow li ngay wax xamoo ko ak koo mën a doon laa wax xamoo li ngay wax kon l'islam matul l'islam dafa matadi lislaam bu fekkee amul une vision